kañ leeral. ñëw leen bu ñuy leeral. mais ñaari bëri doon tegloo warut tegloo. ñëw leen ko. ñett ma naan ko ñaar ma daan ko. yow am nga ñaari defar ci man ma daan la benn yow yaay yow yaay traité. waaw yow la am nga ah! defar ci man. ah garaaw. maa ngi tey dafa daw xonn ma xonn tey daa daw tey mais uh-huh. gi nga ni ma def ñaari magal yi tey bu ñëwoon eh. billahi lu raw laa koy def xoola maa ngi gën may ma damay gën paregu ma jël ma en direct waaw ñaari defet nga am ci man xoola maa ngi gën am aas di gërëm sama yaay di gërëm sëñ Dia tey màgget moo ma toggal dama daa. wax nga 32 bulet barke yàlla 32 bulet la ñu njëkk.